képp kuy sol sa dàll rek lislaam tax laa jóg ñu ngi lay fekk fa nga toog nuyu la di ndokkeel ñëpp ci weeru koor gii nga xam ne ci lañ nekk mm-hmm. di siyaare bu baax a baax a baax a baax mbokk diaspora bi ak biir réew mi ak waa kër sëriñ saaliw di ci jiital Serigne Cheikh Saliou ak mbokki donga tarbiya yëpp Serigne Mara mi ngi leen di nuyu di am mbégte ci yenn di nuyu tamit suñu armée bi di leen mm-hmm. wax ci 4 avril bii ñu jógee mm-hmm. mais respect man soldaarub Serigne Saliou bi maa ngi ndokkeel ñëpp képp kuy soldaar Mm-hmm. sëriñ Mara mi ngi lay tatoué di la jox loxo di la sargal di la ndokkeel di nuyu bu baax a baax a baax armée bi mais respect moom sëñ Mara. <laughs> jàngeen jëf. alors sëñ Mara euh, déjà lu doy waar la donc mm-hmm. tey nga ñëw euh, ci euh, trait militaire bi nga sol donc c'est vrai que. maay soldaaru Serigne Saliou. yëfi soldat nga def tey. waaw sëñ Mara mm-hmm. nga xam naa ni dañuy dugg directement ci vif du sujet bi donc. bu ñu waxee ci. Ousmane Sonko nga nekk. Mhm. waayam. Mhm. nekk euh, sëriñam quand même. Mhm. ñu jékki-jékki gis sëñ Mara. ci titre bi déjà ñëpp dinañu jaaxle. Adji Sarr seet si na ma alors Adji Sarr seet si na la sëñ Mara donc dans la vraie dafa ñëw seet la. ci gént la. naka la demee. Mm, yaaram jërëjëf maa ngi lay nuyu di am mbégte di nuyu suñu mbokk Sénégal yi nga xam ne sama génn bariwul. ndax ñi ngi tëju woon bi ñu jógee tukki ba tey li tax tey ma génn dafa am tuuti lu ko waral euh, ci yi nga xam ne jaaroon na fi yii yépp bu ma sañoon sax lii ca kanam nga may laaj euh, nu mu tuddati dijee mhm. euh, kooku nga tudd ni mu ñëwee ci ñun mhm. ma indi ci ay leeral waaye bëggoon naa tamit ñu waxtaane bu baax a baax a baax li nga xam ne mooy yi fi jote jàll. waaw mais euh, lu mel ni daa mel ni nag loolu yow. daf laa waxtaane de dinañ waxtaane li fi jote jàll de mais sëñ bi. <laughs> waaw naa nii mhm. euh, Ousmane Sonko ku ko wax. waaw wax ci sëriñ Mara. dama bëgg mhm. rek ñu. Mhm. leeral xelu téléspectateur yi. waaw. Adji Sarr daf la seet si naka la demee pourquoi ñu jot information wu comme quoi que. Adji dafa ñëw seet si sëñ Mara Niass. Euh, waaw loolu. am na ku ma jege koo xam ne maa ngi koy nuyu ña ca kër ga xale yi di am mbégte dama ne man duma ma gént damay gis Didier man duma ma gént damay gis euh, maa ngi doon jàpp kurus nekkoon ci ñaari fani xalwatu yu gàtt tëju ko ba fajar gi xar mel ni daal dañ ma tiim te noonu la deme muy aji saar hmm? waaw te booba booba booba liggéey naa kurus moo tax may dànkaa fu ne aji saar képp kuy mbokkam nañ ma déglu nag hmm? ci jamono jii tembe nañ ma déglu may wax ak ñoom nañu déglu sëñ Mara Niass euh, nañu la déglu parce que li dafa am solo ah surtout <laughs> li tax ma njëkkee ko mooy c'est très important surtout aji saar ni ma duggee ba doon liggéey jalaal ba fajar gi xar wa rabbul kaxbatu musarraf dama koo gis ci ay xat-xat hmm? waaw ci wàllum yaramam ma ne waa man lu ma séq ak aji saar sénégalais sax fàtte nañ aji ñëpp fàtte nañ aji ñëpp fàtte nañ ko ba noppi man aji di dima ñëw di seet si gént mu seet la yow mu seet si ma si gént barke yonent yàlla Muhammad barke yonent yàlla Muhammad ma ne waa man waaye nam ñëwee ku xam gént laa ma ne ay mbokkam képp kuy mbokkam kulluhum na jóg jamono jii ci aw yaramu aji saar man nag bañuma nit jikkoom laay bañ waaye bu ma sañoon kenn du loru waaye aji saar ci guddi yi wàllum wér-gi-yaram man tiital na ma sëñ li ngay wax nii c'est des révélations ah, waaw day mel ni nag lu day mel ni lu puisque euh, bu ma waxee loolu dinañ euh, bu kenn yéene kenn lu bon man ñëpp xam nañ sama position. Eh, charte bi aji bi muy ñëw ci yow ci melokaan bi man melokaan la indi. baaxut li may génn ci waxtu wi duy caaxaan melokaan wi aji génnee baaxut te barke yonent yàlla Muhammad aji nim génnee baaxut ci wàllum man nag sëñ Mara da ko fiy wax dañu doxal tuuti na sëñ maaraa waxoon na ko la tax ma génn ci jamono jii aji saar ñëw seet si ma ci gént ma liggéey jalaal aji saar wér-gi-yaramam tiital na ma te képp kuy mbokkam maa ngi leen di ñaan lillaahi wa rasuuli lillaahi wa rasuuli man soxoruma te sëriñ saali woo ma yar jóg leen ci wàllum yaramam ci jamono li ngay wax nii c'est vrai que euh, tu es le marabout loo wax lu nekk euh, ah, suñu borom euh, def ni dañu ci dox ba teg ci suñu bët macha allah mais quand même bu ñu dee wax waxu Adji Sarr ak tawat danga fi yàgg wax yàgg alerté mhm. mais quand même bi nga alerté tey mhm. dem ba Adji Sarr di la seet si ci gént donc mhm. ñëw melokaan melakaan woo xamante ni bi melakaan wu triste la un peu ça peur ah bu ñu ko dee melakaan wa nam ñëwee ci man nekkul ne nam ñëwee laal na sax mbégte ba noppi am lu mu doon sàkku ci sama jëmm. ah barke alxuraan man di jë du wax du ma kàcc du ma wax lu dul dëgg. aji saar ñëw ci gént ci man ba noppi am lu muy sàkku ca laa nag juut jot na moo tax gis nga képp ku nekk ci réew mi di gis walla ngay ñaan wala ngay seetlu boo mënta ràññat la lii liggéey ba fajar gi xaar du caaxaan mën a yëlmet gis aji <laughs> man nag dama leen di wax loo xam ne bu ngeen ci ku ko ku ko ku ko bëgg wala ngay mbokkam jàppale leen ko jamono ji ci wàllum wér-gi-yaramam hmm? man nag damay junju yéene naa ñëpp jàmm nag nañ doxal ñu tëje ko la ma gis ci moom ci leneen li ñu dugg ci projet bi fi jaar ay ca di c'est vrai que euh, li tax ma def bouche bee mooy. Euh, dama la xam. Mhm. xam ni ngay euh, gisee ci wàllu njaan surtout ni ngay gisee rek ci nit ku la woo déjà. nga mhm. koy seetal li ngay gisee ci moom rawatina nit ku ñëw. Mhm. seet si la wala nit koo xamante ne bii man sañ Mara. soo te doon gis ma ci gént moom Mara di taale dama naan donc tey boo gisee Adji Sarr c'est vrai que un peu situation bi. quand même barke jo barke yonent yàlla Muhammad Adji Sarr mi ma gis ci gént aw am na lu ci nekk te bokku ci. aji saar mi ma gis déggoo li ma la wax man dama dama tëju woon am lu may liggéey ba fajar gi xar te bi muy ñëw ni ñu waxante moo tax aji saar ku am bopp la man yaaram du ñëpp laay gis de wala ñëpp ma bëgg a gis waaye dama ne lam doon sàkku ci si man man xam naa ko te nag soxoruma man man defarug Serigne Saliou laa képp ku ñëw ci man ni nga ñëwee ci man danaa la téewee noonu te na may gisee xam nga bu doon damaa soxor bu ma gisee nit kuy loru mën naa cee noppi. mais lii tey lii yee na ñëpp. te nam ñëwee dalul sama xel. donc maay wax ak yéen nag. Euh, alors euh, c'est vrai euh, yaakaar naa ni euh, alerte la ku nekk xam ne Serigne Mara Niass ci réew mi. ak mhm. li muy def. Mhm. en terme de révélation ak seet. mais quand ay mbokkam dégg nañu mhm. je pense bien que à part. politique jàllee lépp jàll. ay jullit lañu war nañu jàppalante ci wàllu xola ay mbokkam dégg nañu. sëñ Mara damay bàyyi wàllu woowu parce que ay mbokk aji sax dégg nañu certainement. ñëw hmm? ci Ousmane Sonko sëñ bi. waaw Ousmane Sonko waaw. lii fi xew. waaw jàll fii ci procès bi nga xamante ne bi gis nañu avant procès bi sax yow nga dem ci max boo xamante ne bi waaw Ousmane moo ko autorisé woon. Mhm. hormis bëgg gi ko bëgg hormis itam. Mhm. jàppale gi nga xamante ne bi nekk nga ko di ko ci jàppale. Mhm. lan nga gis ci ay mbiram. waaw Ousmane Sonko marché bi jàll na procès bi jàll na ñi may topp ci surtout sëriñ Mara TV bi. dama leen a waxoon dinañ coow ci seen biir senegal yi dama bëgg ngeen may déglu di jaman bu ma doon ab tubaab. wala ku dëkk ci yeneen dëkk. bu ma génnee di wax ñëppay taxaw man duma sànni samay wax dama ne woon procès bi dina am coow ci seen biir dina am lëbëj bañ ko war a àttee ci guddi gi décision yooyu amut. Mhm. bi ma koy wax avant su bi def na def na ay semaine la def. ma gisoon loolu muy li wér kilifa woo ma lii dañ ciy rëq ndiggam saye ma ne ko loolu amut gis nga usmaan Sonko barke yonent yàlla Muhammad ni ma yàlla di wane mbiram bu ma ko suñ borom wane woon sama àjjana man ma dee te gis nga ci jamono jii suñu réew mi dafa tàng ci beneen anam te Ousmane Sonko. Mhm. ñi ko jege ci jamono jii. ñu ngi leen di déglu. ci wàllu téléphone. waaw. am na ci waa këram ci biir këru boppam laa la wax nañuy xedem lu jëm ci marché di dox di dem. Ah waa kër Ousmane Sonko ci boppam laay wax direct man sama njaboot lu ko lu fa nar a ruux ma yëg. waa kër Ousmane Sonko jox di dem ci marché hmm? waaw il faut protéger pas Ousmane mais njaboot gi fi mu ne ci laa wàcc si man damay gis tout ak li ko wër la leen waxoon na leen juge bi mbir mi dana am lëbëj na leen dossier bi dafa tàng ñaata avocat ñoo ci faatu te da ngeen ne moon sëñ Mara li ngay wax ni lan la mën na leen dafa tàng bu maam mbay ñaa bi da ngeen koo xeeb waaye ma ko yéen ñëpp fu laaloo leen ma tamit. mais waxoon mais lan moo tax yéen tamit mënuma tamit chaque su may tëju di liggéeyal suñu borom di gis wallahi alazim ci seet ak ci gis li ma ciy gis ci jamono jii bu fekkente ne maanaam damay tiit sax di ko wax. ñun quand ñun quand même après wax dëgg yàlla. procès bi ba événement am ci la ñu gëm yenn révélation yi nga defoon <laughs> ba tax na ñu daggaat ay yenn vidéo yoo waxoon ni <laughs> Ousmane Sonko dina tëdd hôpital <laughs> nga wax ko ñu ne ko gis nga ça fait le tour du monde nga wax ci euh, tawat yoo xamante ne bi euh, dina ko sonal wax aussi ci euh, jaxasoo bi nga xamante ne bi procès bi dina ko jaxasoo lu yëpp waxoon nga ci Serigne Mara c'est vrai que tey gis gi ngay gis Ousmane Sonko nit ñi sax souvent dañu naan dañuy jàpp ne xañ na leneen a lay wax lu bokkut ak li ngay tëdd di ko gis gis nga man damay liggéeyu damaa yor loo xam ne bu ma bëggee xam ci nit ki yenn yi tur sax la may indil. ah waaw. ba nguuru Ousmane Sonko bu ma bu bëgguma di ëppal di wax waaye damay gis ay tur yoo xam ne dañuy leer ci man waaw. Hmm? waaw waaye président Macky Sall moo tax. <laughs> yàlla nañu yàlla musal ci ñàkk am ñu lay seetal wala ñu lay gisal ci président. da nga gis ne président mu lay seetal yàlla nañu ci yàlla musal ndax man li may gis man gëm naa ne président nit ñi dañuy seetlu ñun ñëpp ay nit lañ am na luñ ko doon déye lu ndaw mbiram yu bari du demee nii. ah waaw est-ce que xam nga Mame Mbaye Niang mi porté Ousmane Sonko euh, plainte mm. amoon nag pal Sénégal. maanaam Mame Mbaye Niang hmm. barke yonent yàlla Muhammad bokkoon na ci biddiw yi génn waroon a falu ah bon waaw dangay gis ne dafa yàqu waaw yàqu na nekk ci bopp maanaam nekk ci état ba noppi di dirigé état bu dul état ma Sall la biddiwam dafa taxawoon dafa dafa leeroon naan ak ki sant Ba amadu Amadou man damay gis ñoom ci seen biir yoo xam ne ay mbir la waaye gis nga Ousmane Sonko ci boppam hmm. dana am ku jege lool Ablaye Wade dana ñëw ci biir njabooti usmaan Sonko. ku jege Ablaye Wade. lool te dana ñëw ci biir njabooti Ousmane Sonko ci lu yàggut waaw may dalal seen xel waa Ousmane Sonko ba ci président Ousmane Sonko na ko alhamdulilah baax na. ku jege Ablaye Wade sëñ bi nga wax de parce que itam boo ne woon ku jege Macky Sall sax nit ñi xalaat. Idrissa Seck déedéet man li may liggéey ak li gars liggéey bokkul man damaa yor lu wér toog ci mu may wan di ma wax te bu ma waxul rek faatu danaa wax ku jege Ablaye Wade lool dana dem ci Sonko. mais ku te mbir dana xew. ku am doole la waaw waaw waaw waaw te Ousmane Sonko. man sàmmatan na jaa yonent bee ko waxoon ku noppi mucc Ousmane Sonko day day léeg-léeg da ngay liggéey sax ba fajar gis ko ci mbir yoo xam ne yow sa jëmmi bopp dangay santaat yàlla pour fi nga gis Sonko man dama koy def. Ah waaw. sëñ moo tax noppi gi na ko fa téye tañ na tekk te may ñu ñun tamit am na lu ñuy def. wuute nga gis ak sëriñ yu bari ah. man bokkuma ñoom li ñuy wax bokkuñu bokkuñu bokkuñu man. dafa am lu may gis ak lu may wan nit ni ma nee dugg ci ligne bi nii woo ma ma wax ko moom moom moom fa mu nekk ak la muy def te ñaan naa ko sénégalais yii di ma seetaan nii. Mm-hmm. officiel numéro yi si baar bi. ñu woo ma xam nga man li may wax nii ak seet la gu wér. li may def ci seet ku yàlla bind defoo ko. en attendant de 77 202 63 08 donc dinañu jël quelques téléspectateurs. yoo xamante ne ah, yàllaa ma may loolu. Euh, seetal en direct ci numéro boobu di affiché au bas de l'écran. yàllaa ma may loolu 77 202 63 08 vous êtes plus de. yàllaa ma may euh, loolu personnes à suivre en direct alors euh, li may wax rek sañ Mara Niass mooy jëm ci côté Ousmane Sonko. Mhm. ginnaaw procès bi. surtout 200 millions amande bi. natt yi des na. wala mhm. jeex na fi mu nekk nii. Ousmane sonkoo digganteem ak jóg ci yoon dem dafa des. ah bon maay waxati de. waaye sëñ bi déet waaye sëñ bi. barke Seydina Mohamed barke Seydina Mohamed ma ah man kay man nekkuma fi ngir man damay wax sama àqu lay temps la dafa desaat. Ousmane Sonko fegu Ousmane Sonko jóg dem ci yoon sol yére bu weex dafa des. jóg di wuy ji justice jóg di Sonko. te bu boobaa di fa gis ay tet yu bejjaaw ay boroomi bejjaaw danañ ko topp moom Ousmane Sonko waaye it suñ boroom dana ko ci defal ndam. mais mu ne sutul fànq loolu sëñ ah, sëñ Mara ah man man damay gis te duma gisantu te damay gis gis nga usmaan Sonko ci boppam ñii ma gis muy état bii benn position képp la ñu bëgg fi ne. lenn képp la leen teree nelaw mooy Ousmane Sonko bu mu dem ci élection yi te ma wax la benn affaire hmm. ngir Ousmane Sonko bañ a dem ci élection yi hmm. jaral na leen politiciens yi jaral na leen saayir ak baatin ngir Ousmane Sonko bañ a dem ci élection yi. ba noppi ñu ngi ciy def baatin nag. waaw baatin baatin da cee am mbirum usmaan Sonko barke yonent yàlla Muhammad ñu ngi ciy def baatin pour gàllankoor ko. ci wàll pour mu pour mu bañ a dem ay élection baa xam nga ne usmaan Sonko. rocci woon nañ am xelam si ngir mu baax baa xam nga loolu. du ay nattoo tax de. pour mu décourager. pour mu décourager mais usmaan Sonko mooy jàmbaar Ousmane Sonko barke yonenti yàlla Mouhamed bis bu ko Sénégal ñàkkee bis bu ko Sénégal ñàkkee Sénégal moom gasi. mais li nga Sonko duy caaxaan. nañ ko fonk jox ko gëddaam ndaw ñu jóg bindu ji ñu dem ca mbañ gàcce ga lu waaye def mooy noonu. baa xam nga ne président Macky Sall mii. Uh-huh. moo tax euh, am na lu ma ci gis de wii ak non damaa gis mu ne waaw day dem de. Ah <laughs> <laughs> mais sëñ bi nag quand tey li ma li may dégg. li mësul li may dégg neexuma te gëm naa ne neexul ñu bari quoi parce que troisième mandat bi nga xamante ne. ñu bari ah, Macky Sall daal xam naa ne boog ba ci guddi gii may waxee ak yow. nii ba fi ba nii. Hmm. décision mooy bokk ci élection yi moom. ba nii may waxee yow nii nii nii xam nga man du ma fenn. mais quand même da nga bu ko sensé woon bu ma xëyee suba wax la na la sensé na discours. damaa gis Macky Sall dugg bokk ci élection. man dama koo gis man nag bu ma waxee bëgguma nit ñi gëm ko ndax danañ dox ba yegg ci waaye jigéen dafa rocc loxoom na ko déet. ah bon waaw waaw jigéen rocc na loxoom na ko bul dem. jigéen bu ko jege woon bu ko jege lool. rocc na loxo Macky Sall la mayel téléspectateur ñaar ba ñett nañ leen dugal ñu seetaleen ñu doog a continuer. parce que li may wax dafa am solo ngi noonu euh, ci 77 200. 202 63 08 77. 202 may ndax